mi ngi doon nuyu nañ leen am internet Dakar Buzz comme ni ñu ko tàmmali defee ak yéen chaque samedi bu 20h30 jotee def jootaay gii rek ñu dippee pandémie business nga xam ne ni dañu si waxtaanee rek ay poñ yu bëri si lu ñeel bi le feebar du Covid 19 bi balaa ñuy commencé ma leen di nuyu comme ni ma ko tàmm di defee ak yéen moo xam si réew mi moo xam ci biti réew di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax te leen di kontaanee waaye tamit di nuyu junior Babacar mi nga xamante ni moom lay partagé saa su ne bi les plateau bàyyi la nga nuyonteeg am internautes. soxna Ami ñu ngi lay fay bu baax a baax. di baalu ñëpp ak te di baal ñëpp ak maanaam ci weer bi nga xamante ne tey jii la tàmbale. mu doon yi si suñu bisu fierté ñu ñëpp. ndax ñun saa su ne ndéem chaque samedi dañuy passé. message bi nga xamante ne mooy am di lundi au samedi. di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi. seetaan partout dans le monde yow moom gaa ngi lay suivre yow. Mm-hmm. bu baax a baax donc ñuy dellu di leen jaajëfal amee internet Dakar ba donc pandémie business ba ñu ko doon commencé eh, saa su ne rek eh, bii pa nemmeeku wuñu ko donc eh, maanaam ñuy jëfandikoo li ni mel ngir dugal si seen ay dóor dañu koy rafetlu bu baax a baax xanaa bu weesoo rek ña nga xamante ne ni ñu ngi circuler au niveau des marchés wala li di xarmat ba sax di fa jëlee feebar bi donc si noonu si cas commun communautaire yi lañ si xuusandee nga xam ne jamono ji gis nañu na mu bëree si réew mi saa su rek eh, jëwriñ bu juróom di juróom-ñett donc eh, mu doon lu ñuy ñaawlu ndax bëri na te lu ñu remarqué aussi lu gën a doy waar moo di ña koy am ay jaaykat la ñuy doon nekk si marché yi te boo xoolee foofu marché yi junior la muy dajale si ay nit ku nekk boo xëyee da nga dem marché da nga jënd da nga jokkalante ay cas communautaire ko foofu loolu day eh, dañuy tiital mel nekkul la nga xamante ne ni dal na xel parce que dañuy njort ne ñañ ko mën a wàll bëri nañ parce que mënoo calculer ñaata nit ñoo dugg ca marché ba ñaata nit ñoo jëndalanteeg jaayante ba bu ñu demee seen kër yeeg li ni mel ba cas communautaire yi si mujj sax am na ñi si mujjee am euh, ka nekk ca Pout kooke mu ngi doon jaayee rek lii di légume ca marché Castor fii nii si Ndakaaru mu doon lu doy waar loo xamante ne nii mënu xam ñu ngi njort ana ñan la ko war a mën a wàll gannaaw ba ñu mëntee xam ña mu am na contact yépp donc am na ñu mu jaay ñu dul benn di ñaar ak li ni mel mu doon la nga xamante ne nii tiital nañu junior. ndeysaan femme boobu pour lay jógee. Mhm. dem ci marché bi nga xamante ne commune jëppal direct la nekk. Mhm. marché boobu yaakaar naa bokk na ci marché yi gën a yaatu macha allah. Mhm. di ñaan kilifa bi fa nekk mooy Cheikh Gueye. mooy maire bi. boo xoolee image yi xam ne carrément marché bi rëb na. ñu ñu koy woon ci vidéo bi te uh-huh. boo xoolee tamit gox bi ña fa nekk seen uh-huh. xel dalul seen xel mënul dal ci maanaam marché boo xamante ne chaque jour dafay am ay yëngu-yëngu kon tey maanaam bu ñu demee rek uh-huh. ba taxaw ci li nga xamante ne ñi fa dëkk ñi ngi tiit ñi ngi lancé appel maire bi nga xamante ne moo nekk foofee di koy nuy di koy nuy pour mu gën ñu maanaam jàppale ci askan bi nga xamante ne ñi ngi yeewoo foofu ndax maasam ñu ngi tiit. ñi ngi tiit bu baax a baax. ak mm-hmm. tamit fépp waaye nekk. Mm-hmm. Sénégal ci réew bi. ñu ngi lay ñaan it maanaam ñu ànd xeex. <laughs> Mm-hmm. nañu ànd xeex junior loolu mooy yoon mbooloo mooy doole te bu weesoo marché Castor da ngay xool marché Ocass ca Touba ñaata cas communautaire la ñu fa wëññi rek bés yi ñu génn donc mu doon lu doy waar loo xamante nii dañ siy lancé appel euh, ñi nga xamante ne ñooy autorités yi ñu jox ndigal ñii di takk de dinañu wàcc si marché junior jël fa seeni mattukaay ku nekk balaa nga am accès si biir marché bi na nga fekk nga am lu am solo la nga xamante ne ni moo la yëkkati lu mënul ñàkk donc bu bu la bu la lu mënul ñàkk yëkkatee Euh, avant ngay dugg laataa loolu nañu xool Junior ndax takk nga masque ou pas masque yi lu obligatoire la war ñu ko foyee surtout si biir marché yi jaay ma beeg jëndlante gi dañoo war a respecter distance un mètre yi Junior parce que cas communautaire yi euh, doon na lu doy wax lool nañu si bàyyi xel donc loolu ñu ngi koy dënk rek suñu autorités yi ñu jox ndiggal li suñu takk der yi ñu wàcc rek ci biir marché yi tasaare fa respecté loo nit ñi mesures yi nañu takk masque yi respecté surtout distance un mètre bi donc restons chez ku nekk rek na nga fa nga dëkk ngir ñu mënta moytandiku rek aar suñu bopp aar euh, ña nga xamante ne ni ñoo nekk si suñu réew mi di Sénégal waaye tamit dana am la nga xamante ne ni doon lu ñuy déplorer bu baax a baax ndaxte ñaawlu nañ ko di yenn acte yu ñuy nemmeeku si yenn gox yi lu ci mel ni Médina lu ci mel ni Rufisque donc jeunes ya fa nekkee nga xam ne rek nañuy doxalee eh, bokkule rek ak nuñ wala ilaa dëppoowul ak na nga xamante ne moom lañu bëggee wa ilaa moom la tëralee yenn mesures yi ngi di xeex fi mbas mi eh, ndaxte ca Medina gis nañ eh, ab famille bi ñu mettoon en quarantaine ñibbi si ñu nekk di leen di gàttandu di leen di eh, dalal li donc ngir te lu si gën a doy waar moo dañoo génnandoor en masse maanaam def mbooloo la nga xamante ne nii dañu koy bañ ngir moytandi ko cas communautaire yi ñu daal di koy def te laata loolu ràññee woon nañ aussi rek ba ñuy défier ñi di takk der yi nga xamante ne nii dañ leen fee teg ngir suñuy kaaraange donc ñu dellu rek di ñaan ña dëkk ca Medina ñu xoolaat seen doxalin bu baax a bu ñu mënta jàppale askan wi jàppale takk der yi si liggéey gi ngir jëlee fi mbas mi jàppale seen gox googee donc ku nekk rek ñu ngi lay ñaan nga toog sa kër jàpp sa njaambur te bañ def lenn la nga xamante ne ni day jalgati yi li mesure. Euh, ndeysaan sono ami nañ ci sax xool. mag ñi fa dëkk. ndax ji jii Medina am na ay emblème yi nga xamante ne fa la yeewoo. Mhm. te ñoom it maanaam lii du neex. kenn. Mhm. ku ci nekk dangay ñaan fi nga dëkk. Mhm. ñu ne ah fii de ay nit yu baax fa yeewoo waaye du caagin indi sax. Mhm. ay nit yu bon ñooy yeewoo foofu. waaye dañ toll ci moment bi nga xamante ne. ñëpp a ngi xeex ngir feebar bi yow mu jóge fi. kaay nag bu fekkee dafa yox nguur day sonn ñun dañuy sonn. kon tey mieux ñu bàyyi ñu def. dëgg yàlla Medina képp ku leen xam xam seen jàmbaarte. ñu ngi leen ñaan xeet yi nii jaru ko. Mm-hmm. ngir yàlla jaru ko. Mm-hmm. waaye nag ñoom nag boo xoolee nag nawetaan moo leen manqué nag. Mm-hmm. nawetaan moo leen manqué waa xam naa nag loolu rek la ñu bëgg a dabb waaye fu ñu ko bëgg a dabb nekkul foofu rek euh, ndaxte jamono ji soxlawuñu lool lu ñu soxla rek ak lu ñu gënal mooy toogandi si kër yi moytandiku li nga xamante ne nii mooy ndajali boo de boo demee sax fa nga xamante ne junior am na quelques personne donte sax mu bañ a bëri taamu nañ si nga respecté un mètre bi surtout. am na sax ay image image yi nga xamante fi mooy mooy wane ne. Mhm. ñoom ñi génn. ci mhm. mbedd bi ci heure bi nga xamante ne. Mhm. jaaduwul waaw. am na solo donc mi ngi noonu waaye tamit danañu leeral rek benn ponk euh, si feeru njiitu réew mi Macky Sall ak rek lu ñeel Covid organique foofee ak Madagascar donc lu ñuy naan dëkk passé na première euh, premier commande donc gis nañ si réseaux sociaux yi euh, doon na la nga xamante ne ni leerul bu baax si bopp askan wi donte sax kii di Andri def na benn tweet waaye teewul mel na ni njiitu réew mi daal dinay démentir rek xam ne na ni deful benn commande. donc da ko doon rek félicité si pa boobu ñu def nga xam ne am na solo te yaakaar naa euh, ku nekk rek sa naataango bu defee la nga xamante ne nii euh, rafet na la nga xamante ne nii euh, doon na lu am njëriñ félicité ko yàqul dara. c'est l'Afrique ci gagne. Mhm. gis nga exploitation. Mhm. ni ñu Europe jàppee monde bi ni mu téye. Mhm. dafa war a dakk feebar bi mi ngi jàngale ne. fépp fu waay nekk doo génn xam nga yow bu njëkk. ministre dañuy feebar dem. dem nañ France ñi dem nañ Belgique waaye feebar bi amul loolu ku ci nekk da nga war a wóolu sa dëkk te ñun nag Afrique la ñu am yaakaar naa bu ñu demee ba am Afrique war nañu xool ñu nit suñu médecins yi fi nekk xarat nañu macha allah ñu xool ñu nit jàngoro bi lan moo koy saafara ndax tey Europe ñooñu ëpp kaa fuf te kan mu kan moo mën a expliquer mhm. lan moo tax Europe ëpp ñu cas mhm. te dans les boo xoolee Afrique moo war ëpp cas Europe foofu ndax ñun ñooy bokk lu ñuy lekk ñooy bokk yi naan ñu ñooy bokk lépp mhm. kon tey ñun nañu xool li nga xamante ne am nañ ko mooy xeet bii nii président euh, malgache bi ñu ngi koy félicité bu baax a baax ci lii nii lii acte bu civil la dëgg-dëgg di ñaan Macky Sall bu mënee sax lëkkaloog moom. Mhm. yow mu dem lëkkaloog moom daal. Mhm. lépp rek euh, suñu kaaraange moo ko tax a lépp rek aar ak euh, sàmm askanu Sénégal rek la nekk donc du ñu def rek lu dul di si jaajëfal bu baax a baax waa Malgache donc euh, doon na lu am solo te tamit réew mi bu ñu si mënee jëfandikoo ngir rek seen kaaraange bopp ngir rek nu askan fi nekk am jàmm yaakaar naa ne loolu aussi la dara donc askan wi nañu bàyyee coow yi ñuy faral di yëkkati si yenn yoo nga xamante xamante ne ni eh, jaru kos yi ñu bàyyi si xel bu baax a baax waaye tamit eh, du ñu fàtte mukk jeunes ya nga xamante ne ay ndaw yuy faral di def ay vidéo de sensibilisation nga xam ne duñ si sonn duñu si tay saa su ne rek ñu ngi yee askan wi ndaxte lu nit ñi di respecté mesures yi teewul am na ñenn ña nga xamante ne ni donte sax bu dee bëriwul ñoom ba tey respecté wuñ ñu ngi jalgati ndax yaakaar naa ne bu fekkoon ne rek respecté nañu mesures yi junior na mu wa illaa sax lii di cas communautaire donc euh, ñiy jaajëfal jeunes yooyu tey ñaaxati rek askan wi ngir ñu gën a tegu euh, gën a def rek norme ya nga xamante ne ni moom la santaane euh, ngir mun na mucc si bi la feebar ndaxte du piqûre du médicament booy jël ngir rek mucc si waaye tamit lépp la nga xamante ne ni tere la nañ ko moytandiku bu baax a baax te xam ne dafa dang nit mën na fa jëlee lii di coronavirus bi moo tax rek ñu daal di koy tere. <laughs> Euh, sensibilisation bi tamit ndaw yi dëkk Médina mhm. ñoo koy def mhm. ñu ngi wan ñoom ay jàmbaar lañ ci waar gi mhm. boo xoolee seen koñ yi ñu ngi fay teg ay ndab yi nga xamante ne dañ fay raxasoo mu ànd ak ay omo ay saabu di leen jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa xeex bi daal lii la. Mhm. lii daal moo gën lépp. Mhm. ku ci nekk ci gox bi bi nga dëkk. Mhm. ñu fexe roy ci lii. gis nañ ko ci yow yow image yi. donc mi ngi noonu am na solo waaye tamit euh, Sénégal am na septième décès duñu ko fàtte wax rek jëkk mastawu askan wi di ci mastawu nguur gi rawatina jëwriñ bu ñu dënk wàllum wér-gu-yaram gi ak képp rek euh, ku nekk ci ministère boobee yor wàllum wér-gu-yaram bi ñu ngi koy mas ñu ngi leen koy mastawu bu baax baax ay jege waaye tamit suñu médecin yi nga xam ne junior euh, tarkal euh, macha allah bu ñu sañoon rek kenn du ñàkk bakkanam si li ni mel bu ñu sañoon ñëpp rek daañu wër ba mën a dellu donc seeni njaboot donc du ñu def di leen di jaajëfal waaye tamit euh, nemmeeku nañ ne bés yu mujj yi ñett wala ilaa sa ñeenti dese yu mujj yi doon na la nga xamante ne nii rawante lu bëri ndaxte troisième décès bi si Ziguinchor ak quatrième décès bi hôpital Fann donc ñaari fan képp la ñu rawante quatrième bi hôpital Fann ak rek ba tey hôpital Fann ak ba tey rek sixième bi même chose hôpital Fann la ñàkkee bakkanam ñaar yooyu motuñ sax benn fan donc mu doon da nga xamante ne ni ku mu jaaxalul rek gisuma lu lay yéemati si kaw suuf ba tax ñu gën a rek euh, vigilant gën moyta moytandiku ndax xam ne feebar bi mu ngi si réew mi junior day law cas communautaire yi ñu ngi fi day law te aussi feebar bi day reye donc ku nekk rek jëlal sa mesure doon sa magu bopp doon sa médecin bopp aar sa bopp si bile feebar ba mën a see mucc muccal sa jegeñaale muccal si aussi sa askan dana am solo di ci di ci nuyu Omar Sy Dakar Buzz chaque publication bi muy def day ne ça devient de plus en plus sérieux kon moom tey ji à travers institut WhatsApp bi muy nekk mi ngi sensibiliser ay nit ku ci nekk mooy ah, port de masque ça devient quelque chose qui est obligatoire di ko jaajëfal bu baax a baax maanaam ñëpp bu ñu defoon nii moom ku ci nekk fi nga nekk ku ci nekk mun nga sensibiliser sa bopp bu baax a baax. ñu ànd ko pour xeex ki nga xamante ne moo ñu sonal loolu. am na solo am na solo bu baax donc rek eh, ku nekk rek doonal sa docteur bopp jël say mesures engagé wu ne man mun naa fee jëlee mbas mi sa morom bu defee noonu it yaakaar naa jàmm rek la ñuy am donc askan bi bàyyi leen si xel bu baax a baax waaye junior du ñu noppi mu kuute waxuñ rek eh, ci famille Pouye eh, nekk rek suñu ay naataango nekk ay doomu réew mi nekk si ay jafe-jafe donc faw ñu waxtaanee si tuuti rek daal di si porox ndoll ndaxte famille googu gis nañ. Euh, la leen dal di ay jafe-jafe ay rëkk-rëkk ak euh, seen kër ga ñu leen génnee donc def nañ lu ëpp rek benn weer wa ilaa lu ëpp benn weer ak genn wàll di yendoo ko fanaan si biti mu doon la nga xamante ne nii euh, métti na métti si sa mbokk di ko dund métti si la nga xamante ne nii sa doomu réew di ko dund ba tax na rek ñenn sax si sénégalais yi ak rek bi jot nañoo collecté ay fonds rawatina ñenn si sites yi donc dajaleel ko yenn dajaleel leen yenn koppar yi rek ngir dimbalee leen ko donc si ñaari fan sax jot nañ leen dajale lu toll si euh, benn million si suñuy koppar donc euh, mu doon la nga xamante ne ni ñu ngi leen si jaajëfal ndaxte rek doomu Sénégal du jëriñ lu dul moromam lu dul lii mu nekk si ay jafe-jafe nga wëllu ko doon na lu am solo lool waaye tamit euh, Faramareen bi junior Wally Ballago Seck toogu si benn yoon moom it gis nañu mu lamb poosam dal di leen rek dimbalee benn million moom it si li ni mel mu doon lu am solo loo xam ne képp ka nga xamante ne ni sa loxo jot na sa digg gannaaw war ngaa def li soo gisee sa mbokk nekk si jafe-jafe nga wëllu ko yaakaar naa yàqul dara lu du jëlee si tuyaaba. ndeysaan fierté bi mooy. Mhm. site en ligne yëpp. Mhm. ñoo boole lëkkaloo. Mhm. ngir lan jàppale. ñi nga xamante ne dañ leen génne. ndax site yi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu. dëgg la nañ koo waxte dee. macha allah boo xoolee. kër gi à l' espace de. deux jours. site bu nekk def nga article. ci kër googu ci kër googu. pour lan nit yi ñoo mun leen dimbali. Mm-hmm. ndeysaan vraiment ren bi nga wax nag. Mm-hmm. daf ci yàgg. Mm-hmm. Baye Fall la ndeysaan moom ñu ngi koy ñaanal ci musique bi mu nekk. mu yow mu gën ci avancé gën ci def ay ndombo tànk. yegg fii yegg fii nga xamante ne bàyyam Youssou Ndour. yegg na foofu ba sax sax sax mën na ko sax romb. ndax moom baax na par rapport ak ci noble yi nga xamante ne mi ngi koy def di ko jaajëfal waat yow bu baax a baax. macha allah luñ ko jaajëfal doyul donc moom Waly Ballago Seck ndax gis nañ lu muy uh, yëngu si wàllum social uh, di dimbale bëri na lool c'est pas la première fois donc du gulet ba tax na ñu ko siy jaajëfal ne ko rek doomu Sénégal lii lay jëriñ réewam uh, fu mu teg tànkam wa ilaa loxo bu mu ko fa mus jëlee moom Waly Ballago Seck donte sax ndaw la mais teewul rek la nga xamante ne nii mooy wàllum social ku nekk si jafe mu ñëw xettali la la première fois donc dañ koy jaajëfal parce que bu ko defalee. ñenn si doomu Sénégal mel na ni rek sénégalais yëpp la ko defal donc jaajëfal ko wàññiwul dara. voilà mi ngi noonu donc euh, balaa ñuy tëj rek xam naa mënuñoo tàggatoo te waxuñ si weeru koor gi nga xam ne junior daal dinay teru am na ña nga xamante ne ni door nañ ni kii démb am na ña nga xamante ne ni door nañ ko tey donc euh, ñu si euh, profité di souhaiter képp ku ñuy seetaan képp bépp jullit ak foo munti nekk si àdduna bi ñu leen di ñaanal kooru jàmm ak salaam te di ko sàkku rek si yéen donc ñu gis euh, ren na mu fi la mu fi fekk di mbas mi mu doon liy firnde ne dana wuute lool ak nañu ko doon amalee fii si suñu réew mi rawatina sax si àdduna wërngal këpp ndax rek mbas mi li nga xam ne sax la xañ bëri na nekkul rek lii di euh, weeru koor kese la ñu xañ waaye lam ñu xañ bëri na donc naafila yi na mu doon amee ca jumaa ya gis nga ko den mm. ñëw na fekk na ñu ngi tëj lii di jumaa yi ndax rek ne dañuy bañ dajaloo yi mu doon la nga xamante ne surtout ñay yëngu si wàllum maanaam maanaam sax yenn kilifa diine yi doon na lu ñu rafetluwul ndax la leen gënaloon sax ke ñenn si ñoom fësal nañ ko mooy rek ñu yokk heure couvre-feu bi ba ñu mun a amal sax yenn si seeni ay mbir waaye gis nañ rek ne njiitu réew mi Macky Sall da leen ko gàntal Bernard ba mu xam leen ni rek dafay maintenir heure bi maanaam rek 20 heures jàpp 6 heures du matin donc ñu xam ne rek ndogalu yàlla la donc jaam ak pexeem yàlla dogalam nii la ko yàlla bëggee def ko sa kër jàpp ba seetlu julli naafila tey ñaan yàlla mbas mi jóge fi donc ñu naan amin ndek tey njoxte ne laataa weeru koor bi eh, di tàggatoo danañu abal ba faw waaw ndeysaan mhm. barki démb la sama doom benn sama benn doom nday di woo mhm. petit lañ koy woowee liberté kar la dëkk mhm. mu ne ah noo leen def ak koor gi yéen ñi nga xamante ne da nekk ci tali bi joxe ndogu di ciy nuyu de passage Abdou Abdou Samba Sow ndeysaan sama jàmbaar bi. suba teel la doon xëy moom. di raxas lépp lu fa nekk pour ñu waajal. waaye nag ku ci nekk war nga xool beneen stratégie. bi nga xamante ne mën nga ko defee. ci joxe ndogu bi. ndax tey jii kenn wóolatul kenn benn regroupement warul am. dëgg waaw kon tey jii ñii nga xamante ne ci kaw tali bi ñoo nekk ñu ngi leen di jaajëfal aussi ñu xamal ne carrément am na ñoo xamante ne ba léegi dañ koy. soxla. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne weeru koor bi daf leen soxal lool. am na ñoo xamante ne ci ñi nekk ci mbedd bi lañ doon dépendre. Mm-hmm. pour la mën a ndogu. waaye ñooñu bu ñu demee ba gisatuñ ñi nekk ci yow ci mbedd bi nan la ñuy def. Mm-hmm. kon ñi doon nekk ci yow ci mbedd bi ku ci nekk war nga toog di xalaat ban genre stratégie. yow ngay më më mëne. pour def si yow sa ndogu. ku ci mel ni. Euh, Baye Zal. Mhm. Baye Zal moom ndeysaan nit ku baax la. moom dina xool mhm. ban solution. Mhm. lay def pour jàppale. ñi nga xamante ne ñi ngi. def acte yu noble yi. Mhm. weeru koor nag shawru ramadan la. Mhm. mooy comme ni ko gars yi di waxee rek œuvrer pour Dieu à travers les hommes. Mhm. fépp fu waay nekk rek nañu xool naka la ñuy mën a jàppale doomu aadama yi nga xamante amuñu ko. wallahi am na solo ndimbal li nañu koy def bu baax a baax képp ka nga xamante ne sa koñ am na koo xamante ne yaa ko ëpp doole donc lambal sa poos nga dem euh, dimbale ko lum la ñaanal rek euh, yaakaar na yomb na yàlla buur bi nangul ko ko ndaxte defal ko yenn yi nga xamante ni yaakaaree wuñ ko wala xelam mu ngi doon xalaat ana fan laay jëlee tey ndogg di xalaat eh, fan laa mën a jëlee sax tàndarma ba nga xamante ne ni mën naa ko ndoggoo si am na fii am na ñoo xamante ne pour juróomi dërëmu tàndarma sax bi xam ne danañu ko ndoggoo day jafe ba tax na rek képp ku nekk si sa kon mhm. eh, boo mënee yëkkati sa dërëm wala sa ñaar dërëm dimbale askan wa nga xamante ne ni seen loxo jotul seen digg gannaaw mhm. sopp nañ ko si loolu yàlla buur bi mooy fay waaye tamit meeru gox yi aussi duñ leen fàtte benn yoon si bile mbir Mhm. waaw tëgguma la di nga gis ay ndaw samay morom yi nga xamante ne dañ ciy dox man ku ci mel ni ay asma ndaw ay davito bilaan lañ koy wooyee ak bàcc petit bàcc moom mooy sama messi mooy sama lépp ku ci nekk maanaam yéen ñooñu may ku ci nekk fi nga dëkk nga war ci mën a dox ci weeru koor bi def la nga daan def te bu ci génnee lu toll nii tarafatal ay ni boo ko mënee yokk sax yokk di lancer appel bépp autorité bi nga xamante ne yaa ngi ci gox. Mhm. war nga xam ne ñi fay yow am na ñuy nga xamante ne amuñu ko. am na jàppale ndaw yi nga xamante ne ñu ngi seeni gox. Mhm. bu leen bàyyi ba ay élection ngeen di ndaw yi nga xam ne ngi ñu ngi ngi ñu ngi seen gox. Mhm. ndaw yi yéen it na ngeen yeewu. bu ñu bàyyee ba élection sax ñu nekkatul jàppale. voilà bu leen bu ngeen bàyyee. bu ñu bàyyee ba élection ñëw. ñu bëgg leen jàppale. yéen ngeen bañ ne ñett. Mhm, foofu sax buñ la jàppale ñu bëgg leen jënt ngay wax. voilà foofu jàppale jàppale amatu fa parce que léegi politiciens yi ñoom loolu loolu képp la ñuy def. Mhm. dañuy bàyyi ba xam ne ñoom seen événement politique yi mi ngi ñëw. Mhm. ñuy soog a woote. ku ci am jom nag. di nga yemale ki yow ki lay woo. ndax instant bi nii ñëpp ko soxla ndéem ñëpp ko soxla nag. ñoom dañuy wàcc dañu war a wàcc. ngir dimbali askan bi nga xamante ne dañ ko soxla à 100 pour cent mm-hmm. waaw mm-hmm. wallahi jaar na bàyyee xel ñi nga xamante ne ni yelloo nañu rek lu ñu ndoggoo illa lu ñu am seen kër yi ba mën a taal cin nañ leen bàyyee xel foofee sax naa fa joxe benn exemple di vidéo bi circulé si réseaux sociaux yi nga xamante ne nii benn maire mu ngi yool lekkatam donc nduggi woon marché ba policiers yi këpp ko donc vidéo boobu di wër si réseaux sociaux yi euh, ndaxte rek takkul masque a jëlee ndax am na lu gën a doy wax mhm. loolu luy am si réew mi te gisuñu ñu ne mhm. jël nañ ci yenn mesures yi donc euh, ñu gis euh, ndeysaan euh, ba mu coupé légumes la sa nekk ndugg ma matul sax mu doon loo xamante ne doy na wax ndax xamoo ndax moom loolu la yaakaaroon ay famille yam loolu lañu yaakaaroon waa kër gi yëpp yaakaar ko donc yow yaakaar nga tas mhm. takk der yi aussi nañuy bàyyee loolu bu baax a baax muy tënde ko xool ak nit ku nekk buñ la xoolee la dañu xam naka lañ mën a jëflanteeg yow naka la mën a aborder ak yow da xam tey jii kii fan la toll nan nga mën a defee ak moom ak ni ni mel ndaxte ñun ñëpp ay magum jëmm lañ donk xam nga dafa ñaaw. Mhm. bu doon yaayam la. na xool beneen anam bu mu koy defee nii. wallaahi. bu doon raqam la wala keneen keneen. Mhm. dëgg la. Mhm. yow lañ jox nombal bi nga xamante ne yaa war a defendre yaa war a da war a jege askan bi. ab policier nag bu demee bay def ni moromu yaayam. war nañ ko woo corriger ko. Mhm. teg ko ci axe. Mhm. budul woon ak képp ku mënti doon da ko war a woo jàngal ko. Mhm. même ndugg bi bu bu sax téye mu téye ko fa kooku dem wuti masque ñëw sol ko soo ko jël. yow xamoo doomu aadama. naka la def ba am ndugub bi. yow nga tuur ko. yow xool xool nga yow yaa ngi yow policier boobu. yaa ngi dox si naaj bi tàng bi. yow pour fay ko xalaatal yow nga fay ko génn li ngay fay ko. benn doomu aadama këf ko daw. <laughs> dina la metti loolu. trop yow kii ñàkk-ñàkkam. nga fas yéene dem dundal ay. <laughs> njabootam yow nga ne yow yow yaa am doole. ba da dem këppal yi. waaye nag <laughs> yàlla am na de. Mhm. wallaahi yàlla am na ñaaw na lool lool man je me dis que nit boo ko xoolee rek ba mu xoolee nit ki jàkkaarloo ak la nekk ca mhm. euh, nduggam loolee mu këpp xam nga ne matul sax ñaar téeméer ba nga gisee nu mu tasaadoo si suuf sa yaram dafay daw euh, donc nit ki balaa nga koy corriger yenn yi na nga ju xool ko jàngat nit ki donc ku nekk rek war nga am na nga xamante ni da xam ne kii su ma ko corriger nii danaa am li ma bëgg waaye nekk ko rek ñëpp la ñuy def noonu ñu bàyyande si xel bu baax bay tas yaakaaru famille ndax waa kër ga yëpp la tas seen yaakaar ndax xam naa ne ñu ngi doon xaarandi rek seen maman boobu jógee marché ba ñu togg donc euh, loolu parenthèse rek la woon si weeru koor gi la ñu nekkoon nga xam ne sax si la ñuy tëjee junior donc ñu leen di jaajëfal képp ka safoo Dakar Buzz di ñu teewlu euh, ci bile jootaay ñuy defee ak yéen chaque samedi bu 20h30 minutes jotee di jaajëfal waa diaspora bi bu baax a baax ndax ñoom dañuy teewlu saa su ne mm-hmm. di wax rek ñu bàyyandi xel ci mesures yi muy tënde ko tere yi ah di jaajëfal suñu médecins yi di wax takk der aussi ñu xool rek nañuy corriger askan wi eh, ànd ak dal ànd ak rek eh, di di dem ak seeni xel sax laay wax bañ a jëmee ak dem ak seen i xol dana si am solo lool mm-hmm. donc mu ngi noonu di ñaanal ñëpp rek koor gi ñu kum eh, si bile mbas fekk ko fi yàlla nañ ko woor si jàmm ak salaam yàlla na yàlla rek def lu gën si bépp jullit donc balaa mu jëlee fii bile mbas ñëpp rek delluwaat seeni i activité ñëpp delluwaat seeni i yitte donc koom-koom bi ñëwaat ku nekk rek euh, ndóol gi sax laay wax nga xam ne mi ngi fi ne xus donc dal di rek jógee fi ba faw ñu dal di wéyandi suñu Sénégal rek avant waaw di ñaan sunu boroom defal ñu tawféex mhm. musul ñu ci li nga xamante ne mu wàcc mhm. feewar bi man dama dem ba sax mhm. tur bi laay bañ a wax ndax sonal nañu ci koor gi ñu nekk nag ñu ngi ñaan maanaam sunu borom ñu mm-hmm. maanaam xiir ñu ci yoon bu sell te baax mm-hmm. xam ne carrément maanaam sonn nañu mm-hmm. ndéem ñëpp a ngi ñaan waaye moom it mu xool ci weeru koor bi ñu nekk mooy mu gën see jàpp daal jégal ñu li nga xamante ne bépp ñaawteef bépp baakaar bi nga xamante ne doomu aadama yi ñoom ñoo ko def di nuyu ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre mooy waa Italie Espagne mmh, Sénégal le monde entier mmh. ñëpp a ngi suivre émission bi nga xamante ne ñu ngi koy def di jaajëfal ñëpp daal mu mmh. ngi noonu kon jàngeen ngeen jëf yàlla ñu yàlla may kooru jàmm ak salaam ñu koy sàkku tamit si yéen euh, ba samedi prochain vingt heures trente minutes en direct fii ci Dakar Buzz jàngeen ngeen jëf